Assalamualaikum, mbok internet yi safo di setan sen site internet Ngoy TV te ñu del wat fi ni ci medina fek si supporteru Tapha ya ñu bëgg waxtaan ci bës bi ñu jë jëlmal dimanche bi di ñew digante mak Bombardier ñu fek fi presse fek fi itam jigenu ah ñëpp xamee nañ ko yaakar na bu ngeen gisé kanam bi rek war ngeen xamé ak yeneen gaay tok ni ya ah. dañ leen di jox kaddu gi ñu nuyoo ñu dugg ci xuus ci waxtaan bi incha allah acca presse yi ñu lay nuyu. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp kaddu gi nag bala moo départ dañuy ñaanal sunu grand ñëpp defal ko Mbaye Thiané heure bi daaw ñoo fi toogoon combat Boy Niang Tapha Tine mu dacc lu ne. suñu boroom jëlee ko fi léegi daal bala noo départ émission bi dañ koy ñaanal kenn ko ne tari Fatiha ak Falaq ak Naas yi ñu ñaanal ko suñu boroom yërëm ko te jégal ko bisimilah. yal na ko sun borom jotale ci yol bi ci barki cheikhou saliw ginaaw bu ma leen nuyoo yéen waa di nuyo site internet bi diko jaajeufal di contane si mom si teway bu mu teway fi set si supporteru tafatini xagne nak man may president waye man ma ci gëna tuti ndax suma tassé ak samay kilifa mo mo sey ngi ni sama sama sama jaay ngi ni xagne nak president mom foog mu jox ko mu bi waye tamit amna kilifa yo xey ni ñing ci bir jotaay bi di nuyu wa RISIS gi yëpp di len jaajeufal di leen xamal benn affaire rek di leen jàppale ne départ bi dimanche fii la euh, dimanche dix heures ku mu fekk di nga am bi di nga am 17 incha allah léegi damay jox kàddu gi Modou Seye mu yeggale kàddu gi. waaleykum euh, wa rahmatullah mbokk yi ñu leen di siyaar bu baax yéen ñëpp képp koo xam ne yaa ngi suivre internet bi Ngoy euh, TV Ngoy ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ñaanal jam di ñaan eh, yàlla saa borom sam leen xanaa bu ko defee rek eh, ñu ne mboolem ñi nga xam ne eh, ñoo tew ci jitaay bi ak mboolem ñi xam ne ñooy supporté Tapha Tine ñëpp ak mboolem ñi nga xam ne dañuy bëggee làmb ñu leen di nuyu leen siyaare di ñaan bés bi nga xam ne se la ñu jëm yàlla saa may ci ndam ndam lu set guy ci barke Seexul Xadim waaw ah, ñuy wax rek comme niñ ko daa waxee. Moustapha Tine moom xam naa dañuy bàyyi gars yi rek ñu gën a yaatal kàddu yi mais suñu doom la euh, suñu champion la suñu xarit la am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax ci bés bi nga xam ne ci la jëm ñuy ñaan di ci dolli si rafet rek yàlla saa borom jàppale ko ci bu baax a baax may ko ci ndam te kenn bañ ci gaañ ñu barke Seydou Khadim naa bu ko defee ñu jëbalaat prési kaddu gi naa mu gën a yaatal euh, waxtaan bi incha allah. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki euh, Ngoy TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawfiix di comme ni ko Eli waxee rek ñuy waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sunu xarit waaye di sunu collègue sunu lépp mbayitin di ko ñaanal yàlla sunu borom yërëm ko te xare ko àjjana ndax bés bi daaw comme nii mu ngi fi woon saa su nekk bu ñu mosaa jóg rek da ciy nekk kon àdduna noonu la ko aussi no way di ko ñaanal comme ni ñu koy waxee Euh, di ñëw comme ni ko ñëpp waxee rek mooy euh, li li xew moom ñun ñëpp xam nañu ko euh, Moustapha Tine moo ñu fi tasale les géants di Bawol fitir roi des arènes incha allah moo ñu fi tax a toog di bes la boo xamante ne aussi comme ni ñu ko waxee ñoo ngi woo ñëpp di woo waa Médina waa Bawol ak fukki paaki ak ñaar waaye di woo mbooleem koo xamante ne yaa ngi bëggee Tapha Tine nga xam ko wala nga bañ koo xam mu ngi lay woo ci bes bi. muy bes bu nu ñor nag di bés bu nu yitteel lool euh, muy loo xamante ne moo ubbi suñu yoon pour nu dem jëli roi des arènes incha allahu rabbi te xam nañ ci rafet njor bu wér a wér ne allah dañu koy daan loolu moom lu ñu gëm la ndax liggéey na ko ànd na ko ak ay bokkam ànd na ko aussi ak ay xaritam ak ay am di jamam kon yaakaar jooju moom yàlla nañ ci yàlla suturaal bu yaakaar yi suñu borom motale ko incha allah xam naa dañuy joxe kàddu gi rek xam naa bu defee tour Euh, ñu dugg ci biir lamb aussi nañ ci gën a mën a xootal incha allah. dañuy santaat bu baax a baax mbooloo bi fi teew yëpp nuyuwaat kii suñu collègue Iliman di ko jaajëfal di ko jox kàddu gi moom tamit mu sànni si ay kàddu. di nuyu di leen siyaar waa di siyaar waa Ngoma TV waa di rafetlu lii macha allah am na solo comme ni ko président rek di nuyuwaat suñu champion di nuyuwaat suñu kilifa yi ñu fekk waa fii moom amaana min nan ko parce que yaakaar naa débuté champion ba léegi ni ngi fi teew kon min nañ ko bu baax a baax a ah, bu lol passé nak may nuyu sama wa dekk wa lambay wa Mbalmi sama dekk di nuyu sama tonto yi nek fop wa waa wante Lamine comme niko ko champion waxan ak wa Buntu Pikine tout fois en tout cas ra ñi ngi woote fep football bol nek te deret bol bol di daw sa yaram na nga ñew bo ñe nga ñew soutenir champion comme niko ko gars de roi des arts mo nu tax te ci combat bi lañ ko mën amé te combat bi tamit moy suñu yoon ndax yaaka na palmarès tegle ñaari victoire affilée nga daan Boy ñaar tek ci Bombardier yaakaar naa mbër wëratu laa bañ bu deug rek nexé bu fekké nak ñi dund lamb ñi ngi dund lamb xamul lamb réalité lamb ni muy doxé mais parcours bo né dama joggé ci Boy ñaar ñëw daan Bombardier Bombardier daan modlo daan balagay deux fois nga joggé ci Boy ñaar ñëw daan Bombardier yaakaar naa kooku amul mbeur bu la wara mëna téggé ci lamb lamb nak des fois nit ñi dañuy gëm seeni bëtt bëgg di lamb ri dem mais bu fekké ñi ngi xep seeni bëtt di xol lamb limu laaj nga koy def mbeur mi beure rek lay def lamb rek lay def duggu ci yenn detail yu dul làmb yaakaar naa làmb nag léegi moom dafa yaq parce que nit ñi dañ ci bolé yeneen ñu ci bokku ak mbeur yaa ma neex wala mbeur mi yaa ma neex mbeur mi yaa ma neex mais mbeur deug bokoy wër ñewal nga seet si am di musawati amna am na fula am fayda bu lamb jotee day lamb ba mu neex day xex di beure waaw di ñaan yalla may ñu ndam dimanche inshallah lamb di wax fep football bool nek rek nañu wuy ci si nañ teel ñew ñëw risis kaar yaa fi biye yaang fi inshallah allah président ngi ni yaakaar naa ku na xam na ni mel xolam dafa baax ku fi ñëw di nga am li nga bëgg incha allah rabi di woo sama mbokk yëpp nag nag waaw di kontaan lu ne di ci rafetlu macha allah am na solo. combat bi ni ñu koy waajee yaakaar naa mobilisation bi dimanche ku ñëw fi di nga xam li fan su club Tapha Tine waaj comme ni ko toomaa waxee di woo Bawol gépp di woo Médina di woo Réfane Ngunjaan bàyyiwuma kenn waaw dimanche daal ku ñëw fi incha di 10 heures dinañ la jox billet la jox euh, tiset dinañ la jox kaar nga dem stade incha allah. ñu euh, mhm. Bawol mooy làmb. Ah. amateur yëpp yi gën a dagg Bawol Bawol ñooy dagg billet yu seer yi. waaw stade soo fa demee li fa toog yëpp billet loos ak yëpp Bawol Bawol yi la Bawol Bawol du yàq làmb ñun daan ñibbi nga daan ñu ñibbi ñun mosunoo yàq làmb su dee Bawol Bawol mas naa yàq làmb rek nga ne ma Bawol Bawol mas na yàq ñun noo yor supporters yoo su na dem stade lu rafet la ñuy sol xeeñ lu neex yor lu bari su demee toogee yow di la jëndal boisson ngay naan loolu bawol bawol doo nga ko man waaw te yaakaar naa combat bi waa kër waa kër Bombardier ak waa kër Tapha Tine mën na noo bokk fu ñu toog di waxtaan di bëggee ñu daan leen ànd ak ñoom gunge leen ba ñu jël péage bi ñu ñibbisiwaat Medina feete ko victoire bi incha allah su barke Serigne Saliou maa ngi koy ñaan suñu borom yàlla na ko suñu borom def. maa leen fay ñu ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. waaw. waaw. waaw xoolal ñu santee yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant kilifa diina yi nekk si àdduna bi yëpp di sant ñëpp di gërëm tamit waa Medina. di ñaanal bébé suba yal na ko yàlla may victoire sedd ndax moom mooy ubbi ndax moo war a bëre suba di ko ñaanal victoire incha allah di woo bawal bawal yëpp di woo meeru Ngunjaan meeru Réfan meeru Tuubaatul ndax ale boobu benn la ñun ñoo bokk ndey ñoo bokku baa ñooy ànd bu ñuy dugg oto di dem Ngunjaan ak reefan benn la am na ñu jógee Ngunjaan say reefan am na ñu jógee reefan say Ngunjaan kon ñun benn lañ nañu jàppalante te yàlla tax bul jàppale nit foog ne kii su ma ko jàppalee dafa may romb kon doo ko jàppale te ñun bawal bawal dañ ko bëgg a def suñu bopp su ma jàppalee tafaatin daf may raw loolu jàppale woo nit to yàlla tax nit ki boo koy jàppale danga koy jàppale to yàlla tax tafaatin ñun buñ ko dooleelee ñun kese kese jee bu ñëwee stade du am fu mu ay supporteram ba ma ci buntu bi lañ toog di ko xaar te xam naa ne dina daj lu metti ndax ñun dañoo pare ci lépp bu ñu ñëwee dinañ leen dalal may leen ndox may leen ay boisson daan leen ànd ak ñoom ba Thiès may leen xaalis ñu daal di dem ñu wàññeeku féete nag suñu victoire incha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla nag yal nañu yàlla may victoire bu sedd guy faatin daan ñu féete ko féete bu rëy di nuyu Ilimane président di nuyu Siga Mele ndax moom sonn na ci torop moom mooy lépp Tapha Tine lépp Tapha Tine la na ñëw fii wax si bis ci combat bi lu ma ci gis daal Tapha na suul ay tànkam toj yaxu bakkanu Bombardier après mu ñëwaat dog ko daan yaxu bakkan bi daal na ma ko tojal ma ñaawal ko ko pare. waaw na raak bu fekkee mënul loolu mu jox ma première part ma géré loolu ak bom ba pare moom mu ñëw eggali deuxième part bi. Modou Copet bu Tapha Tine. Ah, ngañ dem wali mata njaay guy nga niis naay yaay booy wali njaay kaay jangi jotaati tafa taalibe maam Cheikh Ibrahima bi laay bëgg a woo isa jeey fati penn lastukaabe ngoo ne jeey ñi lay ñaan nga dóoral ñu Bombardier mu daanu ay waliya ne waliya no waliyaan yaay booy da ngay daan mbaa ñu daan la <laughs> Wa ki moy sunu artiste artiste comédien la. artiste comédien la moy artiste su Régis bi quoi. waaw léegi mën naa ko questionner amay dro. Wa kay kon euh, Thiopete ñu ngi lay nuyu bu baax di la siara. waaw ma ngi lay ñaanal jamm. Euh, ñu jëm ci bës bu rëy ah Bës bo xamantene ni Sénégal gi yëpp ñu koy xaar. Euh, muy digënté tafatine ak Bombardier. muy rawas mm-hmm. ñu xamne dañ ko ñamalon mu dem après léegi mu wat di jël ci lan ngay wax yow boo ci. waaw li may wax moom du ci bari ndax xam euh, jot nañoo laale kon xam nañ ko bu baax a baax a baax fan ko jaaroon lañ koy jaaraat mu dëgëree bopp mu day gën a ñaaw ku ñu xam nag ñun moom li ñu xamee sañse lu rafet yor lu bari suñuy poos supporté ci normal amul violence amul dara waaw dóor mu daanu wala jàpp daan loolu loolu lan ñu xamee kenn xamuñu yàq làmb comme ni ko sawaay waxee léegi rek bu ñu neexee ñu toog seen biir di leen teral di leen teral ba ba làmb ji di jeex ñu gunge leen ndànk ñu ñibbi loolu la ñu xamee ca loolu la ñuy def incha allah dimanche. waaw jërëjëf champion waaw lu ma lay conseillé Tapha Tine Tapha xale la Tapha xale moo ko mag ci ayat te ku ne gis na ne premier combat bi ni mu demee woon métti woon na trop waaw bii li ma koy conseillé mooy mus entraîné na ni mu war a entraîné contact na bu contact bu doy na samp ay ay tànkam xeex mënul ñàkk Bombardier kenn mënul xeex bëreeg moom te doo xeex ak moom ku weddi laajal Balla Gaye yaakaar naa ba mu ñëwee am na nu combat ba war a déroulé ba mu déparé gis na na mu demee ah, lépp lu ko coono yi mu ca daj yu nekk na mu bëree la ba ma jël ngay bëri bëri moom da ngay xeex ak moom. waaw. waaw. dëgg la mais Tapha dafa mën a xeex. Tapha dafa mën a xeex. te xam na nu ñu mooy toogu. te maanaam mën na xeex te ku Bombardier du ko tuuse tuuse bu tax ñu wax. Tapha dafa mën a xeex. mbër yu koy teg ak yu wax yu bari yi yëpp xeexu Tapha Tine la ñuy sóoraale te bëre tamit dafa mën a bëre parce que yaakaar naa ku mbapat ku mbapat Tapha Tine doon koo seetaan mbapat depuis muy toll ni yaawu jàll ba ni muy toll nii mu toll kon kooku su ma déggee nit ñi di laam-laam bi naan mënu bëri dafa may jaaxal dafa mën a bëree. dafa la jëm. ya fan la jëm day sës gaay ci miir bi da leen sës ci miir bi. Eumeu Sène. dafa war a bëree ak moom. Modou Lo dafa war a bëree ak moom. Balla naka noonu. mais pourquoi lu tax gars yabante ay joxante revanche est ce que tok nga mbeur bu gis gis nga mbeur bu tok plateau dal di laaj tafatine revanche bo ma je moko ñuka def ta pourtant gis nañ fi mbeur yu fi bëri ay ñett yoon gis nañ fi mbeur yu fi bëri ay ñaar yoon mais lool moy lan mo lool lambal lo olof ñay di wax ñu no gor bala bala nga ko bala nga bala nga ko yab ñam ko mais ñom nak dañuy top di ñamante rek ba kañ ah mais bu ngeen jógee ci bombardier tam soxlawu leen tàggat bala ngeen non la dëgg la dëgg lu koy soxlaa jamono yi lu ban bëggee bëre mu dafa nu ko bëre ñu lamb ji moom da ngay toog ba neex la rek ñu ndaw wut si la mais boo nekkee amee benn gàllankoor bu ndaw dootu ñu wax tafaati amaa ba lekku daan la dëgg bañ a bëre moom mais tafaati instant xoolul la dëgg malgré que moonu daan mais xooluñu ko yaakaar bu jógee ci combat bi loolu yëpp du ko parce que waaw loolu da koy suul bu da koy bu mais le du ah Ama Baldé du mbër Ama Baldé bu daane Tapha da ko war a daan mais Ama bale daan Tapha Tine ñu ne moo lan moom moo ko arrêté moo ko sauvé affaire loolu loolu du wax. mais lan moo tax reporter yu mag yi ñu gën a xam fii senegal di toog ci seen a seppi loolu soxor loolu soxor dong la loolu soxor ak iñaane nit ki la rek. loolu soxor ak ay ñaan liggéey gis nañ fi mbër yoo xam ba ñuy toll seen digg doole lañ leen daan te pourtant dañoo continuer bëre mbër yoo xam ba ñuy di toj làmb ñu toll seen digg doole dañ leen ñu tey ji dañoo ñëw bëre waat daan génn ci voilà da cee bokk léegi pourquoi Tapha Tine Ama Baldé daan ko ñu bëgg suul ci làmb loolu soxor la rek nit ñi nit nit borom xol bu bon moom mënoo wax ba mu wax jàmm voilà maa ngi lay fay maa ngi sant bu baax waa maa ngi nuyu ñi toog ci plateau bi yëpp dalee ko ci président rek ak kilifa yuñ fi fekk ndax Tapha fii la defee léppam ci réussite bi avant nag dañuy euh, ñaanal rek ki nga xamante ne daa nekkoon suñu biir muy Mbaye Thiané nekk suñu lépp saa yu ñu gestu woon rek ci programme mu Tapha dañ koy gis suñu wet ñun ñëw tey fekkuñu ko réussite ñu koy ñaanal fu mu dem yal na ko dàqal fu mu jóge yàlla xare ko àjjana te jéggal ko ay bàkkaaram yàlla teg loxo ci njaboot bu mu fi bàyyi waa loolu su weesoo nag damay jaajëfal ñépp di jaajëfal président infatigable ndax yi dafa sonn dafa jàpp te yàlla rek tax na bëgg tafaatin dafa bëgg tafaatin ba bëggaale képp ku bëgg tafaatin ñuy jaajëfal ñi nga xamante ne nag saa yu ñu ñëwee ci Ricis bi ndax man dëkkuma Ricis ñii ñoo ñuy dalal muy moo say ngoma gaay yëpp waa kafe gi su ñu limee nii rek ndim na ñëpp waa di ñaanal ñëpp di kontaan si ñëpp nag dañuy ñëw rek si question bi nga posé Iliman Sall sànq mooy ñi nga ne dañuy toog seen palaatoo di filtre Tapha ndax ni ko Ama Baldé daan mais Ama Baldé mun naa daan ku ne te xaalis bu ñu fayoon tafaatin digganteem ak euh, kalaax boobu képp ku mu duggoon seen kër rek doo bàyyi mu génn kon nañu bàyyi yooyu fii ku bañ a daanu doo dugg doo takk ngemb loolu destin la woon ci Tapha loolu terewu ko bokk ci làmb ndax Tapha dafa bokk ci làmb ki ngay naan nag day toog si plateau di filtre Tapha wala c'est-à-dire kooku làmb da ko fee bàyyi dafa tardé xam nga soo dem nekkee ci milieu ba milieu boobu fàtte la soo buggee ñëwaat il faut nga laal koo xamante ne soo leen laalee mbokkam yëpp ay jóg Lolou mo waralon génnam bobu mu génn mais kep ku taxaw ne tafatine dafa rutuble ci lamb waxo lu am waxo lu am parce que tafatine gis nga su fekkone ne gars yi dañ ko nangoo jël kon dépasser na fi mu nek ni mais tafa day dan ba pare am problème adversaire mais su fekkone Tapha yu bëree lendemain ba jox ko avance Dépasser na niveau bi mu nek ni lamb ji nak ñepp fi am défaite bu nuñ ne Ama Baldé moo daan Tafatine rek Tafatine waratul yéeg wala Tafatine waratul c'est-à-dire est fii lañ ko fekk te fii lañ ko bàyyi Yékini Balla Gaye moo ko fi jëlee kan moo xalaatoon loolu ci làmb Yékini sa xalaatu ko woon kon nañu bàyyi Ama Baldé moo daan Tafatine fi mbër yi yëpp lañ fi daan barki dem moo njaay la Balla Gaye Boy ko daan te kenn xalaatu ko woon ah Tapha dafa bokk ci làmb te il faut gars yi bàyyi ko xel bu baax na ñuy wax ci da ngay gis ñu toog ci plateau di cité VIP yi mujjee Tapha Tine pourtant du yoon pourtant du yoon ndax rek ne bawol bawol gis nga tey làmb su amoon ñu ne benn bawol bawol du dugg stade làmb ja kenn du fa nekk kenn du fa kon nañu ba bàyyee tafaatin xel ndax ñun de moom la ñu am ci làmb ji ak rakkam ñu topp ci ginnaawam mais instant yii suñu roi ñun mooy tafaatin te incha allah roi boobu tafaat dina ko dugal biir ba woon loolu mooy suñu gëm-gëm te moom tamit loolu lay rêvé du Bombardier mooy téye tafaatin pour mu jëli roi bi kooku paa la buy waaj a génn ci làmb ji ne xaaral ma dem lekki sama xaalis si euh, kii Tafa. dafa dafa war a dabuwaat waa les arènes encore ndax bàyyiwul boppam. Mhm. loolu mënul nekk. Ah, ah. Tapha lu mu liggéey du pour Bombardier Tapha Tapha euh, ku gis Tapha Tine seetaanoon nga Tapha Elton yaa nga ca biir écurie ba gis nga état Tapha boobu moom lay war a indiwaat amateuru làmp la douze kon nga xam ne tafaatin liggéey na kon tafaatin Tine ak Bombardier liggéey bi daa bokkul bokkul gis nga Bombardier su ma doon moom damay ñëw jébalu Tapha daan ma ma dem. loolu Eh, maa fi nekkal Bombardier léegi kat. mais Bombardier su ñëwee pour méttatil. Eh, rubrique yi baax. pour métti eh, combat mu daanu. waaye ne ko cee waa dinañ ko daan ñëw ci xewam bi loolu du problème maa ko defaral pañe ñaareel bi man maa ko dig pañe ay cuuraay ak yëpp laa koy defaral. nii lu bari. te liin leen ñaanal seen jàmm ak seen jàmm yaram te mbay caanam fi jóge yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla ci saral ay yaxam sunu waay la sunu waay dem na waaw liggéeyal na sëñ Tuubaa baax baax wér a wér a wér ñun ñàkk yàlla na ko yàlla defal foofa li mu bëgg te li ñuy wax nag tafatin mii ñuy wax nii nekk li ñuy wax wiri wiri jaari ndaari ñi fi nekk dañ kaa ragalam xel loolu dong la amul ku ko ci ñeme bu fekkoon ne dañuy jël paaga teg teg daan tër ren bu Tapha taxawee kenn du ñëw. muy Modou Lô muy Boy Niang muy Balla Gaye muy ku mën a doon ñëpp tout deux mille mbër yi ngay gis yëpp boo fi nekk mais amul ku ci am lekk avance Tapha Tine ñemewu ko boo fi nekk rek wër-wëral bi lépp wir wir jaan daal yàggee daan ñëw incha kii combat bi dañ koy daan ñëw dem Modou Lô fu mën a lim làqatu yow mu làqatu day ñëw ñu defal ko bagaas rooy moom incha allah daan daan ko téye rooy bi sax dunoo ko danoo nekk champion boo xam ne ci kun xool danga nga daw ñun baobab yëpp bu ñu obligé woon taxaw amul kenn ku ñuy tane ci làmb te nun te nun dunoo gëm def gëm nañ liggéey gëm li ni def du ne xeexkat nun ay noobo lan ay boromi xaaj lan jàmm la wër bol naa ko ak waa ak suñu bak suñu ak Serap Fall day dan day am dam yeen wa Touba na yeen ñepp man fat sek ma ngi leen nuyu seen tur ak bis sant te di leen yëgal bis bi moom lañ am le 12 fu waay nekk sa cruise na nga ñaan ndax boy bi jar nako ko jar naa présenté fii ba état yi nag yéen ñëpp laay waxal am na mbeur mo xamna ne na naa ci aduna bépp yaru na am na mbeur mi am na taay bi bu ñu taxawee caaxaan des dëgg des kum taxaw du mëna yëmul fi nga yëmul fi non day dañ ñibbi am solo inshallah ni ñu koy waxe rek euh, di wo wa Medina aussi wa robos Grand Dakar kolaban, Colobane fepa, am ah, ba Mbour ah, supporter fan club Tafatine am nembur, Mbour pap Niang moko jité Mbour euh, am amna fa say bu beure ay car dañu génnee ma même biir kër ñom Bombardier amnañ fa ay supporter Bombardier na xamné ne lamb ji li moko fi indi moy wax ñi mu wax ak li rek mu pare mu jëm lolu moy lamb ji di wo wa Medina nyapu, di wo Bamba Fall aussi Cheikh Ba Euh, di woo Pathé Ndoye Ba ak Youssou Diall yéen ñëpp ngeen xam ne Medina moo soxla euh, di woo sunu grand frère Abdou Kandji bi nekk fii ci koñ bi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk kirisis bi ñëpp ñu ngi leen di woo dimanche incha allahu rabbi comme ni ñu koy waxee mobilisation forte ñu dem stade gagné di woo aussi monsieur le maire Djibril Thiaw maire Refane euh, Mbaye Dione maire Ngoundiane comment dirais je Ahmed Dieye maire ak mboolem maire yi nekk Bawol yëpp ñu ngi leen di woo mboolem ministre yi Mor Ngom ak ñëpp. ñu ngi leen di woo di leen xamal ne euh, dëkk bu nekk la fay ñuul moo di fa ab ñàgg ñun bawol tafaatin la ñu am képp ku ñu bëgg a jàppale ak foo mën a nekk boo jàppalee tafaatin jàppale nga bawol parce que titre bawol la ndamal bawol la euh, sagub bawol la aussi képp koo xamante ne autorité nga boo xamante ne nekk nga bawol wala foo mën a nekk na nga ñëw jàppale tafaatin incha allah ñu jëli ndam li euh, loolu lañ fi am parce que ku ci xewle da nga koy woo mu ñu wuy la kon su xewlee bu leen woowee da ko war a wuy si loolu mooy yoon euh, forcé wuñu kenn nag ni ñu wax xeej na tàng na waaye du dara dañoo xam ne li ñu bokk ñoo ko bokk te ñu ko sadoo bawol noo ko bokk ndam li bu tafaateen gañee bawol yëpp a gagné euh, bu tafaateen gagné ba Medina yëpp a gagné euh, kon ñoo ngi woo ñëpp di ñaan rek bés bi ñi nga xam ne moom fa lañ jëm yàlla naa ci jàmm rek am ñu dem jël ndam li ñëwaat Bombardier moom comme conseil bi ma koy jox mooy comme bi ko Siga jox wala jaara bi ma ko jox. mooy mu ñëw noppal boppam xam ne mag la dem na retraite mu ñëw teel joxe boppam ñu daan ko ñibbi bu dul loolu nag bu deful loolu li maam a wax la ñuy def de toj jeexu bàkkanam bi ba pare mu dem ñibbi loolu baaxul ci moom mag la na xam loolu parce que wax naa ko signature contrat bi keroog deses nee naa ko booy mun naa mën a ko paa bi naa mën a ko da xam ne affaire bi jeexal nga ci gone yi ñoo xewle tafaten ma woon bala daanoon daa gën a wow gën a feres te daa am lu ko tax a jóg. supporters yi la mobilisation bi mom rek mais côté billet côté car yi avons a ngi ci présé ñun kuy bawol bawol dimanche à partir de 9h nga ñew ici. fi ngi fi bis la fi billet mais suma fa joggé rek mobilisation gërëm kilifa yoo xamante ne dañuy ñaanal tafaatin grâce à damay dem ba Touba Toul fekk fa Baye Jili Pouy maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko kontaane di jaajëfal euh, Serigne Youm borom Mali gis nañ taxawaayam ci Tafatine gis nañ taxawaayam ci fans club moom du jog duñu conseiller nekk nag kilifa ba pare nekk ci biir fans club bi ñaari nit suñ fa werantee mu jël leen ci suuf te terewul moo ngi di ñaanal Tapha kon ñoo koy sant bu baax di sant daal képp kuy kilifa di ñaanal Tapha Tine grâce à Siga Dione maa ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal nag Mamo Sakho borom New York kooku sax combat Tapha Tine day jàppale Tapha grâce à Siga maa ngi koy jaajëfal bu baax di jaajëfal ñëpp daal képp koo xamante ne rek yaa ngi jàppale tafaatin Siga bu tafaatin Tine moo ngi lay jaajëfal di la kontaanee di naan mobilisation bi ñoo ngi woowaat gars yi rek réussir comme dab si café gi ku xëy daal nga ñëw fi ñu jaajëfal ñëpp ñi fi toogoon ci comme melni ni Roqya Ndour sama rakaji <laughs> soxna jaara bu so borom poroxan sa yu magge so gis ko sama wet parfois say damay dem ba tit si combat mais mom moy ñew di ma defal kon ma ngoy jaajeufal bu baax di jaajeufal ñep jox cadeau bi prezi assalamu alaykum rek di siarat ñep di wote war rek di wote wat kullu bawol bawol ku deretu bawol di daw sa yaram rek ñong lay wo Dimas yakana ku ñew Régis dimanche dinañ la jox billet dinañ la jox car dinañ la jox nga añ dinañ la jox nga nan ñu ànd dem stade 11h dal war noo fekk stade ñu tok waaw di nuyu monsieur le maire jibril Thiaw ñong koy sant diko gëreum di gëreum Ahmed Dieye di gëreum Bamba Fall maire maire ngundian ñong koy euh, gëreum bay jonn ak maire Medina Cheikh Ba maa ñoo koy bégee bu baax mom tamit maire Touba Toul maire Kër Samba Kane Ibrahima Fall ak maire lambay meeru xombal ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo si combat bi daal waa mbal mi waa mbal moom kenn kenn du leen woo ñoom ñoom ñoom yaakaar naa dañ see taxrib am léegi fi mu toll nii sa waay nee na gartombe lay indil waa ji gartombe yaakaar naa bawol bawol yi xam nañ gartombe lan mooy gartombe ñun suñu temps booy bu ñu ko daan def dañuy rëdd aw rëdd daan ne doomu doomu ragal du ko def bu ko defee boo boo bañ rek bañ da ngay ñëw dugg ci géew ah bii gartombe la gartombe doomu ragal du ko def da ko leen la quatre personnes nekk ci biir quatre personnes nekk ci biir yow da ngay ci biir dañ lay génne fa force aree naaw yaa xam ci bët lay lay dóor yaa xam ci bakkan lay dóor yaa xam da ngay gis ñu dóor ba mu lew billaay walaay te lay ñëw da ngay gis mu dóor ari ba mu lemu ta téew lay jógaat boo déggee ñu ne doomu ragal du ko def nga xam ne doomu ragal du ko def li mu wax dafa leer de voilà Moussa Moussa yow war ngaa xam gartombe de ah gartombe man damay man man nag bool bool la waaye damay dégg gartombe waaye mosuma xam luy gartombe de ndax man suñ doon gartombe man damaa ragalan damay daw dugg suñ kër damay gis booy di dóorante rek waaye xam ma lan mooy gartombe laaj ñaa ko tafaa ba son mais expliqué wu ma gartombe waaw est-ce yow xam nga gartombe mosee xam nga gartombe i maa ko ñeme woon da bëgg man moom rek laa bëggoon ah, ngunda ngunda xadim xadim tin doomu tafatin doom tafatin waaw ah combat bi ah ñun de fu toll nii ñu ngi nuyu ñëpp muy ngunjaan muy refan muy bawol ku lu baawal daal képp kuy baawal ba ba ci kajoor ñu ngi woo ñëpp ci combat bi ñu jàppale suñu mbër tafaat sampiyon bi mu yàlla may ñu ba bés ba mu daan Bombardier ndam ji jël bu rëy ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ngi ñaan daal yàlla may ñu ndam sa instant bi xol bee fees nga mu doom baay yow mbër nga woon xam nga làmb sigil wax ak gars yi mbër nga woon xam nga làmb euh, làmb ji yow lan nga ci gis euh, làmb ji daal li ma ci gis tafaatin lam ji mooy borom Bombardier lu mu andi arrangé nañu su su taxawee su lu mu andi su andee bëre ñu ñu bëre daan ko su andee xeex ñu duma ko comprendre nga. yow li nga gis daal kon moom bu yóbboo mu yombal ko rek ñëw daanu ñu. non na su ñu yóbboo na teel a joxe boppam te euh, teel a nangu day wa euh, day yombali duma na teel a joxe boppam rek mag la. Tafa Essa bi daane ci yoon ñun dañoo soxla ci mom leneen roi des arènes lañ bok mu mu ko ci loxam ngam jamono ji su chaxan jeexee lam ji moy moko mom amu fi morom wallahi tu Bombardier nak suy deuguer bop lañ ko defoon lañ koy defaat day seul mo deret bi na ñew joxe bopam rek waaw inshallah ñu ngi woon nak wa Ngunjaan nak refa nak ñep ñu ñew ci bes bi alaykum di ñaan suñu grand bi rek mbay Thiané ko ñaanal baax yalla nako yalla yàlla jéggal ko xaar ko jana mom da bokkon ci ñun ndeysaan te comme jóge na fi dañ koy ñaanal baax sax suñu ñu koy ñaanal di ñaanal Tapha ndam bu baax di ñaan nak combat bi man dem ma sañon wolbit gang lay doon man ma sañon dara du ci am quoi waaw barik Serigne Touba marja mag la teet it waaw ji dal soxla wuñ ko ci lam ji dal waaw biir dal yàlla na daan yàlla na daan sa deret sa deret dal lool la ci ñaan yàlla na daal jël bu rëy jaajëf waaw di nuyuwaat rek di woote waat di woote waat kullu bawal bàyyiwuma kenn li ko dalee Thiès ba Ngunjaan ba Touba Toul me mexey mbal waa mbali moom sax jërum ma woo man waa mbali moom ak buntu Pikine waa buntu Pikine maa leen woo di woo pàkk bawol bawol yi waa rival mi waa fororis ñëpp maa leen woo sëfaru taxi bagage yi sëfaru taximaan yi ñëpp suba bu kenn liggéey commerçant yi maa leen woo waa Sandaga bàyyiwuma kenn même wa Mbour Mbour sax ma fa ëppale Bombardier ay supporter Mbour mom lima am Mbour bomba amu amuko ndax yaakaar naa open presse ba la fa nek ñep ay bawol bawol la ñi ko doon seetaan ñëpp ay bawol bawol la waaw bom dal lima koy ñaan mu ñew nek mak ma defal ko affaire mak su nekké bandi bandi lu ma ñew defal ko bagage dem sama yoon lol dal la koy ñaan té eh, ma ngi sante ñep di gëreem ñep di sante Moussa bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax bismillah itam damay woote ndax da ngeen wo wa bol nak wo wulen wa sama wa dëkk ah, wa to dañ ci japp wa ngoy mooy Aliou Sylla maa ngi leen di woo yéen ñëpp voilà maa ngi leen di woo ci combat bi ngeen ñëw jàpp ci tafaatin def nan daan def am na kër yu waaw waa Mbomboy ah nee nañu woo leen am na fu daan dem foofu ci paa góor gi dinaa la woo suba incha allahu rabi paa góor gi dinaa la woo suba na nga daan def nga defaat noonu incha allahu rabi suba dinaa la woo ci kattanu yàlla da ngay sooytaan Ngoy TV chaque jour da nga may woo di ma conseil ci tafaatin tey nag man dama kontaan li tax li tax li tax ma ñëw fii nii tey c'est la première fois ci écrit ba laa nekkoon dafa xam na ma bu baax comprendre nga euh, taaya dama def benn vidéo ci moom acca bisimilah lool du ko yàq waaw macha allah waaw da ciy bokk sax <laughs> dabal andi waatal des na tay dañoo def vidéo ci mom xam nga xol dañ ne du bok ñaar man tafatin mo nek sama xol Mom la bok te rus naa benen berdi mbër di bëre ci kawsu makoy may ñaan yalla koku am ndam ku barki siwul khadim yalla nako yalla suñu borom may ndam ci combat bi billahi wallahi yalla nako yalla suñu borom may ndam barki alquranu karim lepp lu mu yene yalla nako yalla suñu borom may mu jël roi des arènes ñu ànd ak moom fii nii dakaar dem fépp ci Bawol dugg ak moom fépp ci barke Seydina Mohamed mënul ñàkk dañ koy dañ koy def force la incha allah moom bu seetaanee xam na ndax am na lu bari loo xam ne waxtaan naa ko ak siga yi nii yaakaar naa nit su la wóoluwul du la denk loolu te tafa am na lu mu ma denk te lool du ay caaxaan kon ñu ngi sant ñëpp aca di gërëm ñëpp di leen dox dox daje incha allahu rabi ba beneen yoon ci café Touba bi